ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir wala si biir réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen a jot moo leen vidéo boo ko ngir mën a xam li nga xam ne Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens, les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 482 tests réalisés, 30 sont revenus positifs. Il s'agit de 26 contacts suivis par nos services et de 4 cas issus de la transmission communautaire identifiée à Touba. 11 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est à ce jour signalé. L'état de santé des patients hospitalisés par ailleurs est stable. À ce jour, 442 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 253 guéris 6 décédés, 1 évacué et donc 182 sous traitement. Comme annoncé hier, mardi 21 avril le Sénégal a enregistré son sixième cas de décès lié au Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. ma jàngal leen ci wolof communiqué numéro ministère de la santé et de l'action sociale. ngeen jot wala si biti réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal mën a xam li nga xam